wallaahi euh, jigéen ñi ak góor ñi benn lañu am na góor gu nga xam ni li ci jigéen a ëpp ci moom am jigéen joo xam ni li ci góor ëpp ci moom waaw moo lu mat a xam ne la waaye boo jàppee jins bi noonu rekk jins jins jins jins di nga jum bu metti léeg nga gis góor goo xam ni dina baqaar ba àgg fu nga xam ni ctt ctt kenn wës ko gis ci àdduna léeg-léeg nga gis jigéen ju dul daw mukk loolu dafa yam ndeysaan